waaw wax dëgg yàlla loolu nag du actualité fi mu toll nii ñun nañ ko wax rek nañ ko leeralal ni ko nag sa question yooyu amuñu tontom wala wala wala daal euh, waaye mënoon naa gën a leer comme que borom xam-xam la. Hmm. nekk ci réew mi am si lu ko leer ci li wax na na dul baaraam daal ni kii diw def na lii wala diw jox na lii kii bu ko defee ñu mën a xam quoi ndax man réew mu mettee nii nit ñi bëgg dee amuñu poste de santé amuñu courant amuñu ndox jafe-jafe yi ñu dëkk. ay milliards yu ñu mën a décanter situation yi nekk fi nga daal koy jël jox ko jigéen mu daaw ak moom wax dëgg yàlla loolu. mu non daaw moom Assane la ba jox ko jigéen mu daaw ak moom. bu demee moom loolu mu tudd. moo tax dafa posé question moom ba léegi confirmé wul que loolu am na de question. question yi mi ngi mel na tey jii. waaw yow nga daan ne euh, Sa xam nga démb jox na ma xaalis xam nga ne jox na ma yow xam nga ko. waaw nga daan ne euh, maa ngi laaj Sa Ndiogou ndax démb dafa jox Assane cent waaye ndax mooy laaj ndax. Ah, waaw mais xam. après ma neexee man maa fay génn naan non saar joxuma lu dul cinquante mille. waaw ah. wala Sadio génn naan non son bi ñu wax xamu si joxuma ko. cent mille mais leer na leen jox ab livre rek la ko jox la wax ab livre. livre bi mën nañ see ubbi dugal sa xaalis bu baax ko jox ko. en hélas ñoom livre bi lañ yëkkati joxe. mën naa am dañ ko ubbi def def sa seeg yooyu joxaat ko livre bi ñoom livre bi lañ gis mais la ba moom aji soo moo tax mu wax ko léegi nag ko war na leer daa war na wax ni. ko may. Ah, ah, na leeral. da ngay nooy ak yu subaare. na leeral mbir mi na leer. mu leer ah. d'accord. alaaji ko daal dafa mel réew mi laaj fa ay question wóoratul. Euh, attaques yi nag bari na lool contre euh, moom ci waa APR. waa xam nga. xam nga àddina bi li tax euh, léegi jamono ji intéressant sooy bu euh, da ngay jël benn mbir wax leer na ab ndongo daara ñëw firil la ko firi goo xam ne euh, léeg-léeg da ngay yéemu parce que te moom li muy dund ci jamono ji li muy dund ci tëri bi rek moom la lay wax xam nga asal li muy wax nii gis nañ ba tàyyi ñu jël lu ci mel ni ay permis waaw <laughs> comprendre nga am loo xam ne moom nga parce que daa indi beneen affaire. sa comprendre nga. sa <laughs> comprendre nga. waaw bu boobaa nga ne permis bi rek la joxe. Ah. waaye fekk ne am na lu ne ca biir léegi Assane foofu la. foofu la livre ba Assane joxe waaw foofu waaw waaw moom livre ba ne ca biir livre ba moom lay wax. bi kii nee livre léegi Assane nee na ko. livre boobu mën naa am ñu dugalaale ca ab chèque. bu nekkaale ca biir livre ba ñëw neexul nga ngay wax waaye xamoo la ca biir waaw donc xam nga yooyu yëpp euh, day wane rek ne nit ñi euh, yeewu nañ tey ñor nañ mais man damay wax ne Hadjibou Soumaré sooy bu sànq maa ngi ko doon lor waaw ne la man bon gis-gis bi ma am ci mbir yi hmm. euh, Sénégal parfois dañuy bàyyi li ëpp solo hmm. topp li gën a néew solo bërki dee mboo Njaay buggaan na fee wax lu jëm ci problème mu. dinañ ci ñëw quatre-vingt-dix-huit milliards waaw ma linké ko ak lii parce loolu mooy sama pensée. Mm-hmm. loolu mooy sama xalaat ci diggante bi est-ce que du dañ ñuy bëgg a orienté ñuy xool. Mm-hmm. di débattre ko lieu de ñu débattre ci lële nga xamante ni bii tey jii. maa ngi lay wax mbiru kere bi ma lay soog kere bi dañu ko gën a. waaw kere bi débat kere bi loolu. ay loolu scandale bu loolu loolu. ñooñu jox importance xam nga ñooñu nit ñi xam nañ ni ay caaxaankat yu seen mbir kii la dama dégg borom boobu sax boobu ne ci xaw kii euh, Mansour la def naa euh, kii boobu chroniqueur boobu moo ko garaaw parce que nee na yàlla dafay aaya xool lu bon nga mën a jël dix millions def ko ci télé pour xool lu bon waaw mais c'est que mais télé bi du ndaw de dix millions waaw mais débat boobu man sooy man débat débat débat boobu c'est débat boobu ah kay jar naa ñàkkal fayda parce que euh,

ci ay set milliards man ma jàpp ni Sénégalais yépp tey li doonoon seen yitte mooy ñu xoolaatoon li nga xamante ni bi moom mooy quatre-vingt-dix-huit milliards yooyu ñu wax ne lépp nañ ko ci turu Sénégal waaw d'accord waa léegi mu nekk ci waa léegi d'accord léegi léegi bu ñu dellusee ci àggi bu sumaare waaw euh, est-ce que léegi réew mi dafa war a toll foo xam ne alaaji nit ki dafay poser ay questions au lieu ñu tontu ko mais ñuy xalaat na dem kaso waaw mais xam nga xam fa lañ toll. waaw waaye fi mu toll nii àndandoo waa ji nee nañu gën a xam mbir mi pour gën ñoo joxoñ foofu la rek man naa ni pour gën ñoo joxoñ mais koo xam ne comme nii ak yu bu def la def dafa la mm. ni ko diffamation ñu toll nii man daal politicien bu jógati. mu jékki-jékki na lay. gars yi bëgg laa joxoñ man dinaa xaw a tey tuuti ci say mbir. waaw en tout daal xam naa ne Aliou Soumaré daal moom wax dëgg fa yàlla xaw ma kañ la ko mbirum réew mi. damay ragal daal wax ma lii ñu dugal ko ci biir quoi wax ma lii parce que. loolu yooyu daal xam nga yooyu yëpp mën naa am ci mbir yi yooyu yëpp mën naa am ci mbir yi jekki-jekki rek bëgg fee wax loo xamante ni bii ñoom ñëpp ñu bëgg a commencé parce que gars yi dañoo bëgg a créer beneen beneen mbir maanaam beneen contre fa te loolu pour mu nekk problème la que nit ñi nañu def focus ci li nga xamante ni bii mooy leneen parce que di xam ni am na yu bari yoo xam ni danay génn ci jamono ji pour créer yeneen problème feneen pour bañ a pour fàttaloo nit ñi rek lenn li comprendre nga xamante ni li leen teree nelaw fële lañ koy teg di jéem a wax ci leneen xam nga ni nguur gi yëpp daanaka jóg nañ di tontu ajib mm-hmm. yaa ngi dégg lu leen tere woon jóg tontu bi mu waxee bi mu waxee bi mu waxee quatre-vingt-dix-huit kii. lu tax ñuy soofantal loolu kenn faale wu. waaye Agib dafa attaqué seen leader. waaw parce que imagine yow nga am gan. nga am gan rek gan gi nga ni waaw yow gan gi joxoo ko kii damay laaj. waaw te Assane comme ni nga ko waxee. ñeneen ab livre lañ ko may. ab livre lu ne xaññee. waaw ah. léegi bu attaqué noonu sa leader kay alaaji mais nga a ñëw. Macky Sall waru koo tontu. ministre premier ministre a man daal li ma lay wax mooy. gis nga gis nga gis nga Sénégalais yi bu kenn détourné seen objectif seen xalaat seen gis-gis ak seen yi di génn gis nga yooyu yëpp sooy man dama ci dëxëñ ba ci quatre vingt dix yi sax yooyu yëpp ci ay lèvres la yoo xamante ne bi bés bu ngeen ko toppee <laughs> mujj fenn ay maanaam euh, ñu nekk ci course ay lèvres tëb jekki-jekki rek benn affaire ne bay ñu ne quatre affaire bi ñu posé jékki-jékki ñu ne waat bay daan na set kii maanaam de fi bëgg nañu opinion bi ñu tourné leen ci leneen. ci leen ah, alaaji li ñu leen tourné loo baaxul ci ñoom ay scandale rek baaxul ci alaaji. waaw mais baaxul na fekk yow tey peuple di a na fekk na fekk ñu lay tourné xam nga tey jii ah, son àddina dafa am yu bari yoo xamante ni tey jii mën ngay créer scandale yoo xamante ni. fekk xamu waa ji lu mu ci jublu dëgg-dëgg doo xam ndax jar na ko wala jarul ko ak waa ji fi mu toll lan moo kii doo xam ndax jar na ko wala jarul Seydou dama la bëgg wax ne la. yii ñuy jël naan ay scandale la est-ce que dëgg-dëgg scandale yu am la. est-ce que comprendre nga. est-ce que yu am la. est-ce que yu am la. waaw est-ce que dañu bëgg a dañu bëgg a détourner objectif bi. au lieu que ñu xool loola l'essentiel. waaye léegi moo tax ma licence kon bu ñu doon créé. parce que sooy ma wax la leen leneen lañ war a créé ma wax la ma wax la benn affaire. wallaahi ku la ko wax ak ku la ko waxut bépp politicien buy politique ci réew mi fi nii jàq nañ waaw dañoo jàq parce que li leen jàqal mooy li booy yi am benn objectif rek ne ci loolu da leen a da dafa indi njàqare booy booy booy Ahmed Khalifa ñu ne nee na bi doo nga lay tikki waaye ba wate ba non dégg nga sooy sooy gis nga gis nga tey moo tax ma ne la. booy yi amul moo tax ma ne la booy am na kaaraan. booy am na kaaraan. non booy yi am na kaaraan. maa yi kat am kaaraan. booy yi am meer boo ne wala paa boo ne. naa ñaamul fukki at di wate de. fukki at fan. soo soo ko penku penku. fukki at. waaw est-ce que am na est-ce que mat na ci réew mi waaw. gisoo vidéo bi. fukki at. waaw est-ce que mat na ko sax. loolu day yéex. waaw si sa saw bi am na de. loolu de moom jaarul moom ñan ah, mbokk yi dal leen jàmm ci seen seen YouTube Kawtef TV International